sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamina wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi ajmaina ixwata alimaani wal islaami wal ixsaani wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki M Media Group nuuru daaray ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal àq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nungul ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc rëcc ñu di leen ziyaare di leen ndokkeel rek ci jamono yu sell ñu dund weeru sell wi ñu nekk muy rajab di ndeyu koor bokk ci weer yi nga xam ni dañoo ràññeeku loolu am solo lool eh, ñi sant yàlla subhanahu wa taala di ñaan lépp luñ ci def rek ci ak jaamu yàlla yàlla nañu ko yàlla nungul bi jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa ziyaar boobu ak niyo nag ñu koy jox kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Euh, mu jot li ñu ko mboolem bokk yi nga xam ne ñoom lañu bokkal liggéey bu sell bi waaye moom it ñu di ko ziyaare di ko ndokkeel ci fàttalikook waajuram woowu ñu doon def muy a Cheikh Aboubacar Mbacké jaaxal ibnu Cheikh Balla Coro ñu doon ko def ci àjjuma ji jàll ju la diis di ñaan yàlla subhanahu wa yàlla yokk leer te gën ñoo taas ci barkeem bu baax a baax tey ñaan rek lépp luñ ci def ci ak jaamu yàlla yàlla nungu ko defal ñu ko ay tawfiix ak xéwal ak teraanga ak alaaxira te kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla gën koo yàggal suñ kanam bu baax a baax ba ñu mën koy ko ay at yu bare bare bare yu koy suñ jot di jaay seydi wujud sallallahu alayhi wa sallam kon tey ñuy dellu see rek yéen ci liggéey bu am solo bii nu yàlla boole rek muy xidma bu am am solo di ñaan yàlla doon ci jàppale bu baax tey kon suñu laaj bi ñu fi jëkk am rek mu ngi jóge ci soxna Fatma Ndiaye ñu gëm xam ci ñu gën koo xam ci Cuba Ndiaye soxna si ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ndokkeel soxna si dafay laaj fokk moom mën a zaw ji zawjatahu sawma tatawwu'i soxna si dane day def ay koor yu bari yoo xam ne da koy woor muy woori naafil la waaye dafa am beneen mbokkam bu jigéen boo xam ne moom it day woor koor yooyu rawatina weer yi ñu nekk muy rajab di maalo di ndeyi koor mu ne ñoom daanaka lépp dañ koy woor te mbokkam a daal nee na dafa am sëriñam boo xam ne dafa nekk ci tukki di waaj ñëw te da ko wax ne ko su ma ñëwee daal da bàyyi koor gi muy lan nag ba am loolu ko sëriñam di wax muy su ñëwee day bàyyi kooram eh, naafila la mu doon def eh, ban taxawaay la ci soxna si war a am maanaam day ànd ak sëriñam boobu ci tere boobu mu ko bëgg a tere walla nan lay def waaw loolu liñ fay wax soxna si walla lañ koy jëkk wax mooy fa nasalullaha taala an yazida al uxta assailata tawfiqan wa xirsan ala taati ba ñuy wax liñ koy tontu fu dañuy ndokkeel soxna si euh, ñaanal ko yàlla itam mu dolli ko euh, ak tawféex ak ak gën xër ci jaamu yàlla yooyu nga xam ne soxna si da ci tawa bu baax a baax loolu ñoo ko ci ndokkeel di ko ci ñaan yàlla bu baax mu gën a dëgër waaye itam liy tontoog laaj mooy laa yajuuzu lil mar'ati an tasuuma tatawwuan illa bi idni zawjiha ñi jàngale fiqh fa dañ ne jigéen daal muy soxna amul sañ-sañam maanaam di wooru koor boo xam ne gi koor naa fi la lu dul ni borom këram moo ko ko digal maanaam da am digalal borom këram soxna si daal balaa woor koor ak naafila jiyam dafa nekk ak borom këram da cay diisoog borom këram ba boroom këram d'accord ca su su borom këram d'accordul ci koor googu du euh, saña woor koor googu lima sabata an nabii sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala tasuma wa zawjatuha shahidun illa bi iznihi xayra ramadan ndax lii addis bu wér a wér la seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne jigéen daal luñ ko may du dagal ci moom muy woor koor goo xam ne gi koor ak naa filla la mu di ko woor fekk dafa nekk ak ab sëriñam muy jëkkëram lu dul ni a caa am ndigalal sëriñam boobu ba mu des nag weeru koor mu dee weeru koor daal nga xam ne koor ak moom sëriñam boobu du ko sañ a tere waaye bu dee koral na fi la nag ko teree na bàyyi te xam ne eh, lam am su ko wooree bu wóorul dañ ko ko tere da ci daal am yool boobu ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dana innamal a'malu binniyati yéen eh, liggéey yëpp eh, jëf yëpp mi ngi tënku ci yéene kon yàlla na nu yàlla doole defal laaj ci topp soxna jaal jonn moo ko fi yónnee moom itam ñu ngi koy ziar bu baax gëj nañ koo dégg waaye xam naa jafe-jafe yi rek appareil moom léeg-léeg day xaw a sant ñu ngi loolu xam naa loolu lay demee rek su ko defee soxna si day laaj maa hiya kafaaratu zina dana daal dafa am mbokkam mu jigéen moo xam ne nii daal da ko yónnee laaj bi yóbbante ko ko ne ko danga ma dama bëgg nga laajal ma ci fatwa bi ñuy def ci ma groupe M-Media groupe yi Darayni nga laajal ma ci laaj bi muy ki nga xam ne kii soxna si nga xam ne si dafa njaaloo maanaam bàkkaaram njaaloo boobu lan la mën a def euh, ba bàkkaar boobu dañ ñu koy wax ne man waqaat fi zina fi biladin laa yuqimul xadda faltatub fi ma baynaha wa bayna allahi taala wal tuxlisin wal tuxlis lillaahi ak tawbata soxna si dañ koy ñaanal xel na ko yàlla jéggal te jéggal ñu te baal ko bàkkaar boobu ak bépp bàkkaar bu mën a doon yàlla jéggal ñu ko ñun ñëpp waaye eh, wàllu njaaloo moom dafa doon àtte bu xóot bu sori boo xam ne bii ni ko sariya tëralee mooy képp koo xam ne kii dafa njaaloo bu dee góor la bu góor la bu yoree soxna wala muy jigéen am jëkkër am ab sëriñ masalan bu njaaloo ne dañ ko war a sànni ay xeer ba mu faatu waaye bu dee góor la te amul soxna wala jigéen la te amut ab moom itam bu njaaloo dañ ko war a dóor téeméeri yari yoon waaye nag borom ñuy jàngale fexe fa di leeral charia bi dañ ne bépp soxna boo xam ne bii wala góor boo xam ne bii njaaloo na te nekk ci réew moo xam ne nii réew moomu maanaam àttewuñu ci fa lislaam ne ne tuub euh, dellu ci boroomam jégglu ko bàkkaaram njaaloo boobu nga xam ne bii def na ko te it maanaam na sellal tuubam nga kon soxna soosu daal li ñu koy wax mooy ñeen fii ci senegal maanaam attew ñu fi charia duñ fi dóor kenn yari yoon duñ fi rey kenn ngir ne dafa def bàkkaar boo xam ne la ca lislaam tekkee mooy reye njaaloo boobu mu def na tuub nag mooy euh, rëccu loolu nga xam ne ni def na ko te mu doon bàkkaar bu rëy rëy mu tuub ko rëccu ko dell ci boroomam te fexey lim des ak ci dund dootu ko def mukk loolu daal su ko defee euh, yàlla moom euh, ku tuub rek tuub bu sell sell mu jéggal la loole nga xam ne lii moo taxan nga di ko ngay tuub te it ne ne wal tandam ala azimi jinaayatiha ne ne it loolu soxna si def mu dégg njàll te mu rëy lool te mu rëy lool na ko rëccu ndax bàkkaar bu rëy rëy rëy la fa in taabat at-tawbata an-nasuha fa inna allaha taala yaqbalu tawbataha nee daal su góorgóor la ba loolu mu def mu tuub ko rëcc ko tuub ko tuub gu sell sell yàlla dina nangu tuubam googu wa yaqbalu afrata wa yuqiilu afrataha tey ne fakkastalo boobu mu def yàlla dina ko baal jéggalu ko ndax seydna Muhammad dane at-taa'ibu mina zambi kaman laa zanba lahu Seydina Muhammad ne daal ki nga xam ne kii dafa def bàkkaar tuub ko rëcc ko bañati ko def na ne bàkkaar ba mu ca amee yëpp dañ ko koy raafal dindi ko dootuñu ko topp ca ko ca topp benn bàkkaar kon daal soxna soosu liñ koy dénk mooy loolu mu def na xam ne bàkkaar bu rëy rëy la euh, waaye jéem fii duñ fa àtte ci charia ci wàllu googu na tuub euh, jégglu loolu mu def te bañ a di ko def li des ci dundam lépp loolu daal su ko defee yaakaar ne dina dajeeg yërmande yàlla eh, ak ak njëggalam yàlla yàlla dala defal tawfiq bi jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam yeneen laaj ji topp Serigne Moustapha Thiaw moo ko fi yónnee moom itam moom ñu ngi koy ndokkee lu baax ci yittewoom lu baax lool wax dëgg bëgg lu baax te di jàpp ci liggéey bi loolu wax dëgg yàlla di ko bàyyi xel moom lay laaj xukmu shaar al istinaa maanaam wàllu lu mel ni ay létt lay wax ak li ñuy wax pirik mu ne ndax jël pirik di ko sow maanaam teg ko ci bopp loolu may nañ ko jigéen mu nekk lu dagan ci moom wala déet dañ ko naan laa yajuuzu labsuhu sawaa'un kaana laabisu rajulan aw imraatin loolu ñuy wax pirig nga xam ne lu ñu liggéey la fabriqué ko te xam ne ñoo koy liggéey du ñu ay jullit xamuñu luñ ko xamuñu karawat ba mu doon nga xam ne mën naa nekk loo xam ne ni lu laabut la sellut ne ne daal ne ne ni loolu du may jigéen mu di ko sol ci boppam wala ko sol di ko ñuy wax yooyu ñuy liggéey noonu di ko defar soxna yenn soxna yi di ko jëfandikoo daal loolu moom euh, waaye itam euh, bu dee kawar la koo xam ne xam nañ ne lii kawar ak nangam maanaam ak jur la ci jur lañ ko jële te jur googee lekk gu laab gu dagan goo xam ne gi may nañu julli mu mën koo jëfandikoo kawar googu buñ ko defaree mu mel ni mbaxana noonu muy defe naa mooy pirig bi muy wax comme mbaxana rek nga xam ne da koy sol boo bëggee jàpp dindi ko wala boo bëggee songu farata dindi ko teg ne bu dee xeeti karaw yooyu la moom dinañ ko may soxna si waaye bu dee ni leneen la ca des la moom yeneen kawar yooyu nga xam ni dañ koy liggéey xamuñu kawar ak lu mu doon xamuñu kawar ak nit la sax xamuñu kawar ak lu mu doon rawatina bu dee karaw doomu adama la moom moom la ñu gën a bañ nit di ko jël di ko jëfandikoo waat kon duñ ko ko may daal mu koy teg ci boppam sëñ Moustapha Thiaw di laajaat di ñu leeral ko ci aaya bi yàlla di wax subhanahu wa taala wa in xiftum allah taadilu fa waaxidatan day wax ci wàllu lu jëm ki soxna yi nga xam ne yàlla may na góor ñi ñu di leen takk ci sharia yàlla dane euh, fankixu ma taaba lakum min annisaai mathna wa thalatha wa rubaa fa in xiftumu alla taadilu fa waxidatan yàlla subhaanahu wa dane may na góor ñi euh, ñu yorandoo ñaari soxna maanaam nga takk soxna takkaat keneen muy ñaar nga yorandoo leen may na la it nga maanaam nga yorandoo ñetti soxna may na it nga yore ndoo ñeenti soxna ni moom sariya d'accord na ko daganal na ko may na ko góor ñi nga tàmbalee ci yorandoo ñaari soxna ba ci ñett ba ci ñeent waaye nag bi yàlla mayee loolu daganal ko dafa xam doomu aadama xam ne ñëpp yemunu am na ci ñoo xam ne ñi bu ñu yorondoo bu ñu yoreendoo ay ñaari soxna wala ñett wala ñeent maanaam maanu ko ci wër dëgg maanaam duñ ko ci def moo tax bi yàlla dagana loolu nag dafa wëlbati nag su ngeen demee nag ba ragal ne su ngeen yoroondoo su ngeen yoreendoo ay soxna muy ñaar wala ñett wala ñeent bu ngeen maanu ci seen diggante kon na ngeen ci yor benn soxna maanaam maandu googu nag lay laaj moom ne Moustapha dañ la ndax maandute boobu mooy maandute nga maandu ci seen biir ñoom soxna yi wala maandute nga takk soxna si ba pare bàyyi ko fa dem bi dem bi wuti gëneen jigéen yoo xam ne nga takk ko la mooy maandu yàlla jubal foofu mooy maandu ci biir ci diggante soxna yi nga xam ne ñoom nga takk yorandoo leen maanaam nga yemale leen sa kemtalaal kattan ci li nga xam ne nii maanaam ay jëf la ak ay wax nekk lu feeñ loo xam ne lii day nekk seen diggante waaw loolu daal mooy maante nga xam ne bii moom la yàlla wax ne su fekkee ne dem ngeen ba maandu xam ne gii moom da ngeen ko war a maandu seen ci diggante soxna yooyu ngeen takk yorandoo leen su ngeen ko mën na ngeen ci benn soxna te bañ di yorandoo ñaar wala ñett wala waaye du caagin rek maandoog maanaam yor soxna ba pare bàyyi ko fa dem maanaam di wuti seen soxna di di caaxaana moom déedéet. ndax loola moom euh, bu boobaa lu la sariya tegal tere la ndax day indi njaaloo ak yeneen yoo xam ne yu bàkkaar lay doon kon daal yàlla daal ne ne ku ci nekk mën ngaa takk ñaar wala ñett wala ñeent yorandoo leen waaye nag góorgóorlu ba euh, nga maandu ci seen diggante ndax dem na sax ba naan ci wàllu maandu te googu mu ne la fa fa fa kal muallaqati maanaam nee na am na ñoo xam ne dañuy jéng jéng ba bu ñu yoroon yoreendoo ay soxna sax dañuy dem ba dañ cee jéng jéng am kii am na ci ñoo xam ne leen di bàyyi rek mel ni euh, lu ñu wékk ne rek nga xam ne saa boo ko soxlaa rek daal di koy jël jëfandikoo ko soo paree daal di koy bàyyi loolu yàlla da koo tere yor ay soxla yu bari daal war a maandu ci seen diggante yal na yàlla dafa tax yàlla jaay seen dugub ji sallallahu alayhi Hallelujah.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 yi nii. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey